sur Tiaroy Info Bienvenue dans votre entreprise 3M Menuiserie Métallique Mansour. Vous voulez des portes, que ce soit en fer, aluminium ou encore en inox veuillez vous rapprocher à la menuiserie métallique Mansour et nous vous proposerons différents designs liés à de pour la mer. Vous pouvez également commander votre design de choix. Menuiserie métallique Mansour vous satisfera. prêtez vous une oreille attentive. Nous warlen le actif. Vous voulez des rampantes d'escalier, des garde-fous, chambres à coucher, mini-salon, wala et plateau télévision notre entreprise troisième fabrique tout ceci nañu muy teel yéenay tànn seen bu leen neex waaw waaw lii de xanaa mooy toujours copier mais jamais égalé waaw maa la ko wax roy du nuroog pire. menuiserie métallique Mansour benn la fii nous sommes installés à Tiaro Tally Diallo sous le pont en face de série. pour plus d'informations veuillez nous contacter au 77 404 83 94 ou 77 975 75 95. Menuiserie métallique Mansour, la qualité, notre force. jaaxle tàmbaleeti na ginnaaw bi nawet bi ñëwaatee ci gàllankooram fii si jàmm gën li rond point guy ba quartier Nasroulaye kenn ci askan wi amul foo jaar ndax ndox gu ci yi ci kër jaamu gën si ka mbaaw saret tax ba ñii di mouvement gëm sa réew wone seen ñëg-ñëgu xool waaye it di xamle ni daal ñii di autorité yi daa mel ni rek dañu leen fàtte. waaw tey nag euh, lu waraloon sunu woote mooy taataay ndox yi yàqu-yàqu yi comme ni ñu ko waxee si commencement bi jafe-jafe askan gi. léegi nag euh, fi ñu jaar mooy guy ga foofu moom gis ngeen nu mu mel jaar nañ tamit euh, hôpital Nassourulaay mu nekk si jàmm gën si Kaab Mbaaw jaar nañ tamit Tëlimaam Jaara ñoo ngi tey fii nii ci quartier Nassourulaay comme li ñuy wax chaque jour rek ñoom ba léegi gis ñu fi kenn amul kenn kenn koo xamante ni teg na fi tànkam bu weesee ñun jeunes yi ñoo ngi nii ñu ñoo fi nekk ak suñu yaay ak suñu papa yi ak xale yu ndaw yi nekk ci ndox mi di kërti kërti subaa ak ñoom amul kenn koo xamante ni si ñoom teg na fi tànkam bon ni koy dundee métti na trop waaw parce que koñ bi moom chaque année day taa ñu waxantee dëgg chaque année nii lay mel amuñu kenn ku ñëw diñu soutenir vraiment suñu waxantee dëgg ñun maire bi sax xamuñu ko suñu bëggee dégg maire bi sax xamuñu ko man damay dégg ku ma Ndofène xaw ma mais xamuñu ko suñu koñ bi moom nii la mës a mel

liñ koy dundee daal mooy leen ndox mi daal moom bari na néegi sax dafa taa mat laa yeg yëpp a ngi tooy xepp amuñu fu ñu toggee amuñu fu ñu yàkkee ndox mi nag sonal nañu lool ku ñu dimbali ci ndox mi daal lañ bëgg defaral na suñu koñ bii nu koñ bi tudd na suñu laaj mu dimbali ñu ci defaral na koñ bi ba koñ bi baa ndax fi ñu fu ñu toggee amuñu fu ñu tëdd fi na sunu neeg yaa ngi tëmb ca kaw ak matelas kenn amul foo tëdd waaw yow gis nga gis ngeen image bi yëpp ñun dug ànd na yéen dugg si hôpital bi dugg ngeen si kër yi gis ngeen ñu demee chaque nawet nag ni lay demee ah ba ñuy nekk tout temps que 2005 ba léegi lii ñu koy dund fii nii heure bu tawee rek day gën a yokku waaw te gis ñu benn autorité bu ñu jàppale gis ñu kenn ko ñu jàppale monsieur le maire sax pour nga gis ko fi problème la mais gars yi bu ñu amee soxla si ñun la ñuy ñëw taan ñu buñ paree si ñun rek pare nañ si ñun quoi mais nag après nag conséquence bi ñu ñoo koy ba ba léegi yéen a ngi gis dugg si kër am na ñoo xamante sax fu toggee sax amuñu ko seen lal sax dañ koy mobiliser gis ngeen nox yi ak yooyu noonu hôpital bi tamit même chose nañu jàppale rek ak jàmm gën na suulaay bi ñu dëkkee jumaa yi sam-sam dëgg la sax maire bi moo xaw ma ko maa ngi ko doog a xam tey ñuy jàppale rek parce que lii dafa métti torop métti na torop ak ñi ñu fi nekk xale yi tamit war a fooy yooyu noonu te dañoo nekk ci dañoo nekk ci vacances xale yi dañoo war a fooy yooyu noonu loolu moom baaxul bokk na si it ci li ñu wane si seen ñëg-ñëgu xol seen poste de santé boobee di poste de santé Nasroulaye nga xamante ni amul dara ci ay xaral yu yees yu mën a rek assurer seen wér-gu-yaram. waaw foofu noonu fa la famille di defee li nga xamante ne ni fa la ñuy couché côté quartier bi yëpp képp koo xam ne nii am nga problème rek feebar dal na la fa ngay jubale te amul ay médicament yow gis nga fa dugg nga fa gis nga amul benn garab amul dara luy wane ne lii sax hôpital la. yow yaa ngi gis ndox rek ngay gis ak ay lal. waaw poste santé bi tam gis ngeen nu mela ah. waaw bu dul taw sax laax matériel bu baax amuñu ko des fois da ngay gis sax jigéen bu toll si diggante war a accoucher dañ koy mujj jël jàllale yóbbu ko benn hôpital ndax lan manque matériel waxuma la ak ndox mi ñëw taaji si loolu lépp ay benen affaire la dal manam askan waye wo fofé ci quartier nasroulay ñom sax ña ngay xamle ni dal ki di rek senu jitu gox di kumbando fen maire commune jamba gëna ci kambaaw xamu ñu ko sax nak ba koy teg bët. waaw man lu ma koy dénk moom bëriwut quoi mais mom nañu gëssu dal parce que mom bu fi bu fi tegee ñu ñoo ko fal. Ndoffène lañ bëgg mu jappalé ñu. waaw dimbaliñ ci ndox mi défaral ñu koñ bi ba koñ bi leer ay lampe sax amu fi dara amu fi ñu bëgg rek mu dimbali ñu ngir yalla yoon man nag xawma do fen peut-être jàmm gën si Kambaaw si lañ mais ñun suñu carte dara. ña ngay rek ndimbal di wax ni daal na leen autorité étatique yi gestu seenu gox di jàmm gën a si Kambaaw rawatina quartier Nasroulaye yi. Macky Sall xanaa mu jàppale ñu rek Sall dimbale ñu defaral ñu suñu koñ bii. Ndofène monsieur le maire de jàmm gën si Kambaaw waaw ñu koy tàllal loxo parce que gars yi nañ kër yi am nañ ndox pompe sax pour pompe ndox yi génn amuñu ko waaw nañ ñëw ñëw ñu trouver solution. waaw ñu xool ndox mi jigee fii quoi dem parce que tamit ñun mun ñu dëkk si lii tout le temps waaw ay xale yu ndaw lañ yor xoolal tout temps kii chaque jour ci ndox mi la ñuy xuus te ku ci nekk doo xam ban feebar lay indi. nawet bi di door indaaley gàllankoor ñu yaakaar ni rek xanaa ren jii daal duñ ñu joxati rek discours bi nga xamante ni fàtt na suñuy nopp lii nii dul nekkati rek lu dul mauvais souvenir